Dakar, notre plateforme d'information. waa ñëwal sama nit sama xarit sama ndamit sama njàmpe saabu sama yaay ji nga xam ne cent fois sama yaay ji nga xam ne lu mu laalul baaxul boo xoolee ci biir ni mu mel rek xool war naa sedd tey macha allah di ko ñaanal ca kaw ca kanam rek lii neex na nee naa la bu nit ñi di ut alal utal nit ñi benn jaata doo ala finti doo gajangeer doo jikkoonu géej li nga leble woon rek lañ la fay man maam dellu ku ne xam na ne ci décembre lañ ne tamit dafa sedd moo tax ma defal la njàm pour nii rek daal di lay sama nit kooku amal jàmm ba kenn laal la mbenn wan loog man yow laa bëgg kenn mënu ci dara. waaw waaw waaw ah. dafa jiitu tey wala waaw dafa jiitu tay nag na ba may door a jóg maa ngi la woon ma tey fii ma toll maa ngi moom la te bàyyi ma benn yoon seetaan ma benn yoon lu ma def mu ne ma lii la la di waxtaan ak man di ma conseillé kenn du moom dama koy ñaana rek di ko wax bonne continuation lépp dina baax bu soobee yàlla. waaw yow ak maire ma aminta yow yaa xam yu bari. aminta sonal rek. daf ma sonal sonal sonal ba mënoo comprendre. bës ci moom. non bës kenn du man kenn du man maa ngi nii toog. <laughs> waaw mais kontaan naa nag yow amal jàmm dégg fay naa la maa ngi lay fay bu baax. noo def. sant yàlla baax. lan moo lay indi si bésu Mbène Diatta bi tey. benn mu doon sama doom ma bokk ci ñi ko njëkk a teg ci raay bi ko njëkk a jàngal ko yoroon ci théâtre Mbène artiste la te ma dëkk Tivaouane comme moom moo xewle war naa ci ñëw mais. dafa am leen lu ci am mooy jaasu bi mu jaas sare mi mu tuddee Christ une femme extraordinaire une femme exemplaire nit la boo xam ni bu mu toll mi ngi xool nan lay def ba nit ñi bëgg jël alalam di ko def ci nit ñi vraiment kooku bu ne bisam am na dañ ko war a ñëw assister te ñu ngi ko ñu ngi leen di ñaanal ñoom yàlla ñu raw mag ñi te lépp loo xam ne su mën nañ ko yàlla ñu yàlla defal ndam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa wetu grand frère dem bi dem bi nga xam ne mooy bàyyu ja euh, sare waaw man sama taaw moom laa ko tuddee ñoo bokk caawoon ñoo bokk lépp waa turu ba jamonoy tey ba daari ko ci lépp ñoo ko bokk donc ku may ku ma bàyyi xel la ku la te yàlla. man sama jëkkër la chéri Coco nuyu naa la. maa ngi lay nuyu. nii rek. lu leen di ci bés suñu doom rek moo ñu findi moo ñu tax a bàyyi suñu nelaw ñëw muy mbeet jaata ak jeesare mi ko jàppale ñu nekkoon xale yu nekkoon ci man wax dëgg yàlla gëm li ñuy def di leen ñaanal rek yàlla. jëm ci kaw fi ñëpp àgg ñu Yaasu Sane mi sa doom paraît-il que moo njëkk a jënd terrain jox la ne la démb dama lay dama lay décorer nga ne ko loo may décorer mu ne terrain keroog bi nga jotee terrain bi noo euh, sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax a baax ndax defe naa ne am na ñeneen ñu ma gën a jege li ma leen defal defaluma ko ko te wutulu ñu ma kër. te teralu ma man may teral teral ku ma xam man rek teral na ku ma xam man teral na la kon loolu dama ci am fierté. est-ce que reconnaissance bi na ci Dieng Astou Sare bari na ci xale tey euh, xaw na xaw na néew nag mais am na ñu ko am mais am na xaw na néew dëgg xam nga moom dafa nekk koo xam ne kii bi muy xale maa ngi fàttaliku bu ma leen daan wax naa leen man naa bon quoi mais yéen da ngeen baax moom dafa toog benn bis ma doon ànd ak ñoom bu ñu defee dara ma jox leen xaalis moom dafa xëy benn bis rek ni ma bu ma joxati dërëm dafal naa la ko àddiya ñaanal ma yàlla rek ma arrivé nege moom li ma ko daan jox ay wax la ko daan jënd di ma ko ñawal nege bi bi mu bàyyee ba mag la may soog a wax loolu léegi ma ne gis nga wax yooyu ma ko daan jënd mooy journée yi ma daan jox il faut yàlla may ko il faut yàlla jàppale ko il faut yàlla jàppale ñu daal di jëm ci ki nga xamante ni moom mooy alaaji pen ñu ko toogal nga jàppale ma si poste bi loolu moo taxoon moom a sa amul woon jotu di concentré wu di bind mais euh, actuellement comme décroché na yaakaar naa ni euh, bu ko télé yi soxloo wala wala kii euh, nañu ko wax canal ku ko si am rek di nga am ku mën a bind carte barkala macha allah te moom lépp lu muy bind yeete lay doon Euh, yeete boobu euh, lu am importance la ci théâtre waa série série cinéma la série cinéma a ah, film cinéma lay doon mais bu dee série boo xam ne comme dramatique la mooy comme bu daaree ko ñoom daaree ko ca ah, dramatique la doon joué maanaam yeete lii boo ko continuer ci lu bon lu bon ngay am lii boo ko continuer si lu baax lu baax ngay am loolu moo doon daaray Kocc te ba léegi daaray Kocc mi ngi fi ah parce que directeur ma ngi fi ba léegi. soo gisee théâtre bi nga doxam waaw léegi ma ngi dox trop. cinéma bi daal moo gën a continuer actuellement parce que xale yi loolu la ñu def te ñii ñiy produire si si télé yi ñoom série xale yooyu la ñu la teg. xale yi seen seen jamono moo ñëw ñun buñ buñu bu ñu nekkee daare ko ci boobu benn télé moo fi amoon muy RTS mais léegi télé yu bare moo am xëcc xale yi télé bu ne xëcc groupe tele bu ne xëcc groupe moo tax euh, théâtre développé actuellement pour jàppale si buñ bu ñu noo woonee ñu ñu leen parce que loolu la ñu dese noonu ay mag la ñu xale yi léegi ñoo ñoo toll si jamono dañ leen war a bàyyi xëjal leen ñoomee tam ñu lekk seen wërsëg ñoomee tam wane seen talent mais seen talent ñoom si cinéma la jëm moo tax ok ok. ci ne. mun mon cœur de ma man ñi may takk daal dañoo ñi la takk lu ñu bare bare man may original bi. ñoo def ci bésu tey bi. bésu tey bi mbégte laa ci àndal mbégte bu rëy rëy rëy laa ca àndal. jaa asu sare jaral nañu lu jaral nañu fanaan sax soraano xale la mais ma nga Amérique waaye fàttewul ay papaam fàttewul ay yaayam fàttewul ay maamam bañ na ko ba sax bañ na ko sax ba léegi nii Euh, xale yi jàng alxuraan ak ñoo ñëpp fàttewu si kenn mu ngi tabax daara yi di leen si dugal ñuy jàng te duñu fay dara ko xale bu mel noonu nag def xelam si yàlla ak yonente ba dañu ko war a ñaanal yàlla ak yonente ba gën koo yokk xéewal man de fi ma toog man waxtu bu ne man maa ko wax de maa ni jaatu sare yal na la yàlla def multimilliardaire ndax boo nekk multimilliardaire nun ñëpp nu jeex barke Rasulaay bu nekk multimilliardaire nun ñëpp ay xaamaan la ñuy dawal xaamaan. xam nga warta warta xaamaan. waaw moom moom la ñuy dawal ndax booba dana jënd ak xaamaan xaamaan yu bare jox na ko nun nun grand théâtre kat merci beaucoup Pet.